nataal ñaar ak juróom ndax xaritu yéesu nga dund bu sell moo war a nekk ak yow bul defati mukk li nga doon def bala nga doon xaritu yéesu léegi tur bu ñuy woowee gaay yeesu yi mu yow te tur woowu dañ koy jox ñépp ñi bëgg yeesu di ko topp te bëgg ko ak seen xol bépp bu fekkee xaritu yéesu nga kon ci gaayam yi nga bokk bokk bokkatoo ci seytaane soppeeku nga waroo toppati ci ginnaaw jigéen ñi walla góor ñi waratoo xuloo kenn te waratoo sàcc waratoo jaamu ay xërëm walla déggal te topp say maam waratoo laal dara lu bon gaay yi yàlla yi dañoo nekk ay nit ñu bees te seen dund dafa wuteeg ñi doonul gaay yàlla te gaay yàlla day topp kàddu yàlla te yeesu di def ci yow mbeg saa su nekk